yitte yu kawe la góor gi làmboo yoo xam ne mhm. euh, am na boo xam ne danaa ko nettali puisque daf ñu dal bitim réew dañu ànd dem Maroc 1985 bi mu ñëwee sa majesté le roi Hassan II euh, non 89 89 85 bi am na 89 bi bi mu ñëwee buur bi dalal ko ci benn clinique ci biir Rabat ñu koy tudde al iyaada al malakiya boole kook doktooru boppam docteur Barbiche ne ko dama bëgg nga am fi ay fan noppalu ndax xam naa ne sonn nga ndax li nga yenu diis na góor gi dafa yiw dafa baax du delloo teraanga mu nangu góor gaa nga fa woon professeur Mouhamadul Moustapha Sow yal na yàlla doole guddal fadam passage ñu ngi koy nuyu El Hadj Mouhamadul Moustapha Diop jarbaatam yal na yàlla yokk leeram soxna Fatou Sy Mansour doomam ak soxna Safi ñun ñëpp ñu ngi woon ci yoon wi ak doomam seriñ Cheikh Tidiane Sy ambassadeur bi muy dem clinique bi nag ñun àndoon nañoo ak moom fi ñu ko installé mm-hmm. bi ñu toogee ba ñu installé ko néegam ba noppi ñu jékki-jékki rek am benn soxna bu agsi bu ñuy wax Lalla Mariam moom mooy yoroon clinique bi di ko saytu nu yonte góor gi ba noppi ne ko man maa nekk ci clinique bi man lañ la booleel suñ waree jël sa tension maa koy jël bu ñu waree jël sa deret maa koy jël bi ñu paree ba ndaw si génn mu woo ñu man ak Serigne Cheikh Abdou Aziz Dieye mu ne kii fi jógee kan la ñu ne ko Lalla Maria mu ne lu mu wax ñu waxaat kooku mu ne maa ngi leen di dóor paxta yàlla bu mu laal sama yaram. la ndax sama doom la ñu ne déedéet. Mhm. sama soxna la ñu ne déedéet mu ne kon du sama mahram. la ma laal man nag mënatuma yéen laa nekkal yéen a ma mën a jàppale mais yaramam bu mu laal sama yaram. mu nekk lu xaw a jafe. Mhm. waaye yàlla moom day ànd ak nitu yàlla. bi ñu xëyee suba gi ñu toog rek lalla Mariam agsi bi mu toogee ba nuyoo rek góor gi ne ko lalla Mariam baa yaa ngi toppatoo sa diine di julli. Hmm? Lalla mariyam dafay jooy ba ñun dañu tiit te mag la bu am doom ju nekkoon colonel ci armée royale mu ne ko sii ba mu juddoo ba waxtu wi ma wax ak yow mosuma rukoal yàlla mosuma ko sujjóot la ilaha illallah mhm. góor gi téye ko ayaat quraaniye yi ahadis yi ndaw si di jooy ndaw si dafa génn rek dem wuti xijaab commencé muuru wuti jàllaabe sol ko dafa mujj nekk mu ne ko yow da nga ñëwoon defe ne yaay faj góor gi mhm. nekk yow sa ruuxa feebar góor gi moo a faj la cest yooyu ay témoignages yu sew la <laughs> yoo xamante bi ñun war nañ ko bàyyi xel